لا تودد yaa ngi dégg gay jërëjëf gay ana waa kër ga Ndélaay ci ñi fi jëkk jëkk di déglu téere bii ci la waxoon naa leen ko fi daaw daaw jeex xale bu baax la mu bëgg alxuraan laa ji di sa jóob ak moom nii jàkk yi jëlee ci campement ku ci ne jënd na benn pandil fukki junni juróom def ko fa ñu di ci julli juróom ba léegi bu fekkee su ngeen duggee génn du ngeen indi lu mel ne alquran léegi léegi léegi su ma nee leen prochaine du ngeen ko indi su ma waxee laan euh, ñaar euh, ñaar fukki at ci kanam du ngeen ko indi kon pexe mi lii fi sës jéem a ragal léegi yàlla lu ko muy dee leen dugg kon fa taxu naara ragal leen safara bi nga xam ne kuré di Muhammad ñu yóbbu la ci safara bi ma leen wax nag dugg ngeen xam bi ngeen xam bokkul ak woowu de lëtti safara yoo wax moom uquuduhaa mattama naasu nit lay doon wal ijaaratu ak xeeru briquet nattam àddina safaraw àddina natt koy taala kópp ak poñet mais nattam safaraw àllaaxira nit a koy xam nga nit a dàq a ndax diw gi ànd ak briquet euh, nit ku amul nit ku amul bàkkaar du am diw bu ñàkk safara dafa mel ni gerte bu wàññi dafa mel ni sondeel bu ñoroo ci mees ga bàkkaaray tàkk maam aadama ba ko yàlla ne di nga wàcc ndax def nga lu juyaaloog li ma la santoon moo tax téere yi ne yàlla mat naa moytu aadama genn ak tere rek la def genn ak tere képp genn ak tere la def genn tere ga li mu ko jural kenn la ko wax ci fi هذا وقت daawul béy du joxe dépense du xotti piis du samp rubine du rooti jabaramit noonu du tabax néeg du jënd darab di wut lal yépp a complété lu mu bëgg mu doon na mu mën a na na mu ko bëgg ci saasa aadama jotu la julli jotu la sàbbaal jotu la sikkar نتجبرم بيحرى sun borom ne ko lekk leen fu leen neex bu leen naan garab gii mu ngi solu ba rafet am na téere yu wax ne lii def ci sunu baaraam nii di we moo lu mbubbam maam aadama diñ ko summee dañ fi bàyyi kii pour mu nekk souvenir ru nit moo tax loo dég dég loo kontaan kontaan boo yoree ba sa bët ne tekk ci sa leeg foog nga noppi te doo xam loo noppiloo loo kontaan kontaan boo yoree ba sa bët tegu ci sa foog nga noppi ndax euh, fàttali gi lay fàttali fitna ji nga xam ne ci la jur moom la toggoo woon moo tax ñu bàyyi ko ñu ne ko bu laal garab gi mu laal ko ci lu dul laal ko ci lu dul teef benn tere benn tere bu borom juum te fooroon ne aadama ñu futti ko ba mu set premièrement ndax la ngay jëkk naaw mu bëme naaw turki bi naaw tubéy ji naaw mu fab loxo yi di taw ci awra bi garab gu mu jub garab ga daw na ko bul ma jegeñ mooy nga sa borom mu des di wëndaalu ci biir aljana dañu ne ko fii dootu sa place de centre de centre yaag sa njaboot sa jab sa njaboot sa jabar ji ñu ànd ci peelu waaw yàlla di ko topp nag ci garab gi mu lekk ne ko léegi balaa ngaa lekk te yaa liggéey balaa ngaa naanatu yaa gas teen mbaa yaa samp róogi ni balaa ngaa solati mbubb yaa ko meetarlu mbaa ñu meetar ko may la balaa ngaa lekk ci da ngay togg sa jabar ji dina ñàkk ba xaw a dee di nga wut këw diir wut kuul di wut gën yëpp danaan payan ah, yi yëpp ci tini tini tini tini benn benn benn foog bi mu ko indi lii ginnaaw yoon nag musulaa feebar dinaa la ay feebar dinaa la teg njàqare dinaa la teg naqar dinaa la teg lay xaar nag sukuraat foofu it dinaa fa fayu bu baax te it dañ la suuf ci fu xat a xat ma fekkal fa ak samay ndaw bu bés penc ay su jubalul ku jubalul ma yóbbu ko safara awam nii nag moom dinaa ko teg loxo ak mu nekk ak weer wu nekk dinaa ko presse di génne ci moom deret di fees ay litre mooy reegam yi jigéen ñi gis ba léegi waaw gabaay ñëw na benn tere ci kilifa gu noonu ko kuñ ci def sanction bu day noonu te te arrêté rek di ko gën di tiisal waaw man Ibou Sakho ak ni ma ñàkkee wàccuwaay ci yàlla xam ne ba bu set ma def fukki tere safulaa safulaa sax téeméeri tere ci ëpp na ko sax xam ne li may def ci tere la muy day par bis góor gi juumoon def benn tere rek benn tere ba ñu di ñu ci di fuddan di gëm ba fu dolli ci ndigg ba ilaa yomal am affaire bi doy naa de. adama amul. moo di tere ku ko gëm soppa ko tuutee tere libre la mu noon ne fal yafal il xaqo ma saa wal yafal il baaru كم من كفي ويجو لا نخدفل نكون رسبتو لا نخدفل نكون نياري لا نخدفل ينيرونا ونكون رسبتو ويجو لا نخدفل عجونا جيم كلن من كم لا نخدفل سفر جيم أي محمد ميري كوبا كتخيتم جمكو سبقا توتي تري توتي تري رك لوم يمكو خلاص dafa am maanaam la ne la tufsidu fil ard suuf buñ ci suuf suuf nii ñemeñ na ko taal ci kawam ñemeñ na ko ko gas ñemeñ na ci fecc waaye ñetti yëf mu ngi mettee ci suuf ni rabb gu ñëw tàngal ba jam na ko ci bët ci yéefar ubbi ko ba mu ubbee ku ñu def ci si yéefar suul ko mu ngi mettee ci moom ne ràbb gu jëm ci bët deuxièmement tuur dereti jullit ci koom mu ngi mettee jëm ci bët ñetteel bi moo di maa taali ndoxam janaba mooy sangu te janaba ja newul mu toq ci kawam toq gongoo mu naan ci kawam toq mu ngi mel ne ràbb guñ la jëm ci bët da yuuxu su fekkee ne gerte yooyu day ko am waaw li ne du yàbbeetu lu mu sax jiw buñ ko jox rek mu màtt ko dafay permettre li ci ko mu màgg ndox mi it buy taw balaa de day traversé ñaari xaar bala xaar bala mooy tame première tame bi tame yërmande lay doon bi ci topp tame neer la bu rasulullah ndox mi buy jóg di ñëw donj yi gën a totoo ngi toll ni jàkk yi su dal ci tame yërmande boobu toj seet bu ñëwee rek toj taax yi rey nit ñi foog mu traversé xarbatul xama fa nag seet ndànk jaar ci leeru rasulillahi mu di xarbatu nuur boobu nag nag moo koy indiwaaleel moo koy indiwaaleel courant bu tax mu mën a li ci biir man màggal li taxaw baaxal lii nii hmm? ah ñoom nag ñu baaxoo ne kuy mooy yàlla bu dee ba li ñuy suul duñ ko suul duñ ko suul day tax suñu mbéy du baax te mbéy la ñu yaakaar ci benn saay la benn waay bu saay-saay bu bari aleen bu gudd fan am baat ñu def lu naqar yàlla ba dee ñu ne duñ ko suul ndax kon ren di ñu am taw ñu daldi ko sànni ji sa sanpaare ba suñu borom dafa yónni ci Muusaa ne ko waaye jëlee ñu sànni ci sanpaare ba nan fa dem ëllëg defar ko yàgg kilifa yi suul ko mu ne yàlla kooku kat mu nekke woon mu ne ko xam naa li mu nekke woon wande dañu mës a ubbi tawreet ci kanamam mu gis turu Muhammad ci tawreet laal ci baaraamam laal ko ci bakkanam ci laa ko jéggalu mu mu def yemu ma sax ci jéggal ko waaye may naa ko juróom-ñaar fukki jabar ci hurulaay ni eh, eh, kooku boo ko fekkeetu Muhammad fekkewu ko sax waaye tur bi rek la laal nii def ko nii loolu daal xanaa nga tane ko maam Adama waaye daal tudd woon loolu benn tere googu suñu tere yu bari yii ku ko ca màndaxe musiba am yal na nu yàlla yërëm bi hormati rasulillah nu dem inna la sina gaaye aha waaw kañ Adama nag wàcc ci suuf ne yàlla Ada juróom-ñaari jumtukaay la wàccaale bi muy ñëw indi na aw yet indi na ñeem kooku képp safara indiwaale na dàll indiwaale na juróom dal la indi yoy ñett ci la mais amul safara mu ne yàlla dama bëggoon bu may dimbandikoo ci safar ma tey ah, moom na kat moom na kat amatu gisatu sax yàlla ay intermédiaire rek nag léegi dàq nañ ko dàq bu bon ñu dem ñëw ne na suñu borom ne waaw lu toll nan la soxla jibril ne ko mu ne lu daan nan la soxla mu ne ko ma bëggoon jox ma rek lu tolloo xal yàlla ko su ma ko joxee xal asamaan juróom-ñaar lakk suufi juróom-ñaar lakk kon soo demee nee ko na ma jox genn xal boog bu fi des ba ilaa yomal xiyaam ñu di ci jëriñu mu ne ko su ma ko joxee genn wàlle xal asamaan du lakk waaye suufi juróom-ñaar dina lakk mu ne ko kon na ma jox sullu si xal bu ñu xar ñett mu ne ko asamaan du lakk su du lakk waaye tàngaay bi dina tax gàncax du sax ba ilaa yomal xiyaam mu ne kon nag maa ngi ci tànnug yàlla yàlla na ko lañu dem fab benn xal xal ko fukki yoon fab xal woowa ñu xal fukki yoon xaritu fukkeel ba ñu dugal ko ci juróom-ñaari dugal ko ci fukki yoon loolu ko yëpp maam aadama ñu fab xal woowa xaar ko fanweere fukki xaar dugal ko ci fukki géej yooyu yu yërmandi yi géej gu ñu dugal ko ci fan yu toll noonu ñu dugal ko jox ko aadama teg ko ci wenn doj doj wa xal wa daf ko xal bëtt suufi juróom-ñaar dellu fu mu jugee woon saxaar safa la seen oy oy ci la ñuy taal léegi ba ila yumal xeer do góor a ko dëgg parce que jazaawullahu xayran ko yàlla na ko yàlla fay bi jaayi rasulillah te def ci mi ci mi barke fataku naara ragal leen safara bokkul ak bi ngeen xam nag bokkul ak bii de bii tàkkaar yaa ngi ci dugg sax ak borom kiraama yi wax Suleymaan Haaruna buur bu tàngala mu jubadi di jàpp nit ñi di leen bëggal bëggal bu métti surtout doo dee jullit di ramassé génn guddi taalibe boo xam ne sëriñam am na ci yàlla cir dëkk ba ne ko kii nag boo ko laalee musibaam ndax sëriñam day du ko nit yàlla mooy leen bàyyi leen caaxaan moom laa jëkkëray ëllëg nda wax ko sëriñ bi sëriñ bi xëy ci fekk ñu leen gaaral mu ne ko kii de suma taalibe dama bëggoon nga baal ko mu ne ko foo dëgg ba am fitu nga téye nit nga di ko laaj yow da ngay reyaale gaa yi te jegeñ te xaw ko ñooñ ñu ko ëpp mm, lu tere nga laaj ko ci raama ba xam mu ne ko nee nañu da nga jegeñ sa borom ba am na lu mën a lu jëfandikoo mu ne ko wuy alhamdulilah la am mooy ko doon bëggoon nga woon ma fii kiraama bu ñëpp a gis amul dugg nekk amul sikkar waa ji def nii seen génn giléem bu ñuy fees mu ne yëgoon ñëpp dem ci giléem nga ci bëccëg neefare ba ñaari loxo yi fees mu daw jëm si ci buur beeg tàtt bi mu toog ñu ne waaye lu kii di def mu ñëw ne ko wesaaroo ca kaw buur bi lépp di jama mel mel mel mel mel mel mel ñëpp xoolante jamaa bi waloor yi ëpp na bit ci réew mi te mu ngi ko tëbi ci ci ci ci ci bi fébli si léegi waaw mu ne teg gaa yi gën a jegante yi naa fekk ne ko dañu mokkal njibar de ba wutu lan ñu trompé la mu ne ko dama bëggoon nga def leneen te bu bu lii kaas bi ñu tegoon ci wetu chef bi mu këf mu këf kaas bi ñu ko wóor sànni ku ne di waaf daf nay day dal ko kaas bi dem ba ca kaw mu sarse meew te lu mu ko sànni dara neew ci mu sarse meew ci jaww ji ba fees wal ba ci juutu taat bi ko te dara sóoruwul ah chef bi kii kat niroowul ak ñun daal am na lu mu làmboo daay na ko waaye daal gaaw tu baaxul de te nit sa gannaaw bari na waa ji def nii loxoom kaas bi tegu ci mu cëppil ko mu ne ko ñetteelal mu taalu taal bu rëy ñu ransale ma tamit bu mu taxawaay nit tuur ci essence defal ko ba mu tàkk mu xaaj taalibe yi ñi taxaw ndeyjoor ñi taxaw càmmoñ ñu taxaw ci diggi ci fi tolloog diggi taal bi buur baa ngi toog ak mu def sikul jëlil allah Kaala day tontu salaatu ala nabi ba mu ñetti yoon mu ne ba xër na ci biir taal ba taaj ba muy dugg mu këf ci biir taal. taal bi nga xam ne te te te te te góor bi mu daal soo ko woon daal lu toll ni ba nu commencé jàng mu ne tënk sa côté ba la téye loxo xale bi. xale bi génnaale reenu wu ñor xom ak papaay. lépp li nekk mu tëb dogale ko ne ko moo doom fu ngeen nekk ko woon yàlla sa waa ji de ko papa daal waxuma la banaana bi ne tool bii góor gi yóbbu ma tey tool bu nu mel waxuma sax gàncax ga mais jigéen ñi fa nekk ni ñuy rafete ndox ma fa nekk teyaana yi fay jëpp kenn su ko gis waaye yàlla naar buur ba jub buur ba nag asula laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu di moo tax yàlla ne safar woowu nuyoo la bii bii tàkkaan yaa ngi ciy dugg sax borom kiraama yaa ngi ciy dem qulu an naas safara woowu moom mattam nit lay doon wal ijaara déglu ma de bii taala garaaw taal bi matt ni nit la xam nga kuy xam malaaka amul xol nag boo gisee malaaka du góor du jigéen dañuy bañ ñu di góor di bugal ba yem ci jigéen xaw koo nopp oyofal loxoom foofu du góor du jigéen boo gisee kaaba ga ak médiatul mën a war a ñëkk daan wattu bu njëkk ñu di leen tàpp ndax na yooyu ngay gis kenn du ci góor dañ leen daan tàpp ci la ñu teye waaye dañ leen daan tàpp moo tax góor ak jigéen duñ ci faale kenn bu dee góor xam ne góor piir nga mën ngaa di xàll ba yem ci jonga ma oyofal sa loxo ngir xaw koo bëgg waaye ñoom ñoom la ñuy gën a bañ malaaka yi duñu góor di jigéen ñooy xam ko ñu bari doole lañu duñu téye ñu ci ñaar moyit luñ leen def maslaa kon safara woowu ma leen waxuutu nag ji de waquuduhaa naas wal hijaara alayhaa nekk na ci buntu safara wa nag di xam ñeneen ñu dul ñu dul yéen ñooña ay malaaka la ñuy doon du dëgg ku ñu der safara woowa dencal nañ ko nag il kaafiri na ñeel yi yàlla ñu ci yàlla wa basari bégalal bégalal bégalal yow Muhammad bégalal yow sëriñ bi yor na leen ci àllaaxira jannaatin ay sardin yoo xam ne yii du raak du rakk mukk tëjëri yoo xam ne day sotteeku min taatihaa ci suufi garab ya lanaaru ay rigool rigool yi lem rigool yi ndox rigool yi sàngara ba ci biir nag kullama rusiqoo bépp jamono boo xam ne servi nañ leen min a ca garab yooya min samaratin ci xeetu xeetu meññent risqan aw servin buñ leen servee takkusaan mbaa yoor yoor dinañu ñëw dinañu ne haada alladi lii kat mooy la nga xam ne rusiq naa sori woon nañ ñu ko ñun xablu ca yooloo bu ñu indee palaat yi saaj nañ leen tamit te mosaguñ ko dañ naan lii la ñu ndekkee woon fekk dañu ñëw te uute caf ko buñ ko mosee xam ne biir du ba woon wóotoo nañ leen indil bii ca meññante yooyu mutu suu bi hëet mbir mu ñu di woy ni yooyu melo te uutee caf ka wala wum ñele biñ lekkee ba regg nag taag lu bi sa tax ya aswaajun ay jabar ñu fekk jigéen ñaa ngi tuwaatalu di leen xaar jabar yooyu yëpp laaj suñu jabar yi jabar yooyu mu taxara lu ñu mbërëg mukk mu taxara du ñu gis deretu gësin mu amu amuñu ñandakit mu taxara du ñu génn tànk lu ñu tuur ndox mu taxara du ñu ñàkk ñu ngi ànd ak seen jëkkër yooyu wow ñoom gaa yooyu ci seen tool yooyu ci seen meññante moom ci seen jabar yooyu xaalidoona way sax jëb dëll ñu fi ay jëm ñu gën mukk te yi du tas tool yi du rag bakkan gi du doon alquran dafa tuddoon yoo tuddoon li ñuy wax yem tuddoon li ñuy wax jargoñ yéefar yi nag di ñaawal na bi naan ko sa borom bi daal moo ñàkk bopp lu tax muy tudd rab yi ñàkk fayda yooyu yàlla ne inna allaha borom bi la yestayi ya rasul an yadariba mu joxe masalan exemple su dëgg exemple laa doon joxe rek rusuma joxe exemple de lu dëgg maa lu mu mën a doon nag lu mu mën a doon daal dinaa ci joxe sama exemple ndax boo ko xoolee fekk ca sama ñaw boo xam ne ñaw naa ko ak sama dikkat boo wutatoon moo xam yoola sama foo ak lu ëpp yoo lu ëpp yoo ci yam lu ci mën naa ca wane exemple boo xam ne fa ama alladina amanu ñama dogo ci ñoom ngëm fa yaalamoona dinañu xam ne annahu exemple bi yàlla joxe alxaqu lu sax la newu den gutti seen torom te di dëgg mi rabbi gutti seen borom wa ama alladina daal gaa yi nga xam ne kafaro yëfa nañ ñoom fa yaquluuna ñu naan moom maa fa araada ana lan la jublu laaw yàlla bi xaasaa ci lu ñàkk fayda lii naka leen di ko def exemple sun borom na yu dillu dina sànq bi ci exemple yooyu kasiiran ñu bare bare bari ba du ñu xam dëgg wala di noonu lay tette bi ci exemple it kasiiran yu bari ñu ngi nii yéen ba ñu xam dëgg waaye yow yu déglu du sànku bi ci exemple yàlla ilal faasiqiin dana yéefar yi rek. Eh, yow tuuti na waaye am na ikkam wax naa ne olof luñ xeet dañ naan mu ngi lu ñu naw dañ naan mu ngi toll ni ñay waaw kañ am rek yoo am na ko. ba yoo ëppale ko ñay ñeenti tànk la am ak lan ak ñoom ak lan ak géen yoo ñoo am ñeenti tànk ak lan ak ñox ak lan ak géen ak juróom-ñetti laaf nag te moom boole wu ci woon ni laaf ginnaaw laaf yi itam ñoxam bi li muy xab-xab dañ ko bënn ba mu fulli sellul bënnul ñay li ñox bi réy réy bënnul li ci téye rek tibbukaay la kii ci lay manque lu muy manque kon kañ yàlla ne du ma joxe mukk lu ma rus mukk joxe exemple ci moom ak li la ñuy nag moom loolu am na fi ne gaa yi nga xam ne yanquduuna ah, dinañu trahir eedalaayi eh, kóllëre yàlla kóllëre ga ñu defante woon ak yàlla ne dinañu gëm ne bi te ñu ngi ko defoon min baat yi mii sàq yi ginnaaw ba ñu ko fasanteeg moom ba noppi yemuñu ca wa a ñuy dagg maa gëm ga nga xam ne amara bi mene laaw yàlla an yoo fa la ñu jokkale bii ca gëm nga mooy gëm Iise gëm Moussa gëm Mohamed loolu la waxoon ñoom ñu bëgg a gëm Moussa yi weddi Iise bëgg a gëm Iise weddi Mohamed ñooñu lay wax wa yusidduuna ñuy yàq bi àddi ci réew mi ci mooy yàlla wulaay ki ñii hum ñoom sax sax xaasiroon a ñoo di way perte ñu téykale moo gaa yi kay fa takkafuroon a gan gàtt xel ngeen mën a am ba anta na billaay ci yàlla lu tax bokkuntum te nekkoon ngeen démb am waatan di tox di ndox fi seen diggi bàyyi ndox ngeen woon rek fa yaa ko ma def leen ngeen di woy dund di liir ngeen dudd màgg su ma yumiitukum ba daf jotee ma rey leen su ma yuhyikum topp dig naa leen ak dekkal bés pénc suma tur joona topp def ne jiital leen yéen ñëpp ilay ngeen teew ci kanamu yàlla ngeen gàtt xel ngeen di wér xuba moom yàlla si mooy boobu nga xam ne xalaqa bindal na la kum ñeel leen maa ngi àddi li ci kaw suuf jëmi an lépp ngeen jëriñoo li ci kaw suuf yëpp pour yéen la amul dara loo gis ci kaw suuf lu jomb doomu aadama lu fi ne rek pour doomu aadama mu door a jublu nag ginnaaw bi mu leen jukkee ba noppi ila samaay jëm ci asamaan ak seen service te saw waaxu na mu ne leen def ko saba samawaatin juróom-ñaari asamaan benn sudul moroom boo téenee defe ne génn asamaan la tiim te ñetti sër rek boo leen tegloo sànge ko boo ko boo ko boo ko teglee sàngoo ko foog am bu feeñ mu tegli juróom-ñaari asamaan boo téenee defe ne benn rek la saba samawaatin wa huwa moom borom bi alimun xam nag liggéey bi kulli تلكون إفخال دارك ربك صبر من الملائكة من الملائكة لإني من يلا جاحل جناب سمك خليفة أيران طلها في الأرض جكوفو لا خيا على ذي لف نيو في ميرج جخلن جخلن خيول يلك خيول كم ما يصير بيمو على كل أدين إدين ينن على جين إدين ينن على جين fukk ak juróom-ñaari téeméeri junne at ak juróom-ñaari téeméeri juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar addinaa yàgg door wax malaaka yi daal dama bëgg nag léegi suuf ñu def fa ku ko occupé ku ñuy wax aadama malaaka yi ne ko ëpp naa def day def ni fi njëkkoon rek boo ko fa yóbbu dañuy naan sàngara dañ lay moy dañuy lekk sa yëf dañuy lay tiib bi ñuy kaa yàlla na leen man kat diisuma dama doon yëgle dox leen bu ñu dëddee nag la ñuy wax ne dëdd gu kenn mënul xamal kenn mënul xam dëdd gi ndax dëdd mooy jóge ci bërëb jëm ci bërëb te yàllaa ngi fépp la ñu déeyante ne bàyyi leen ko rek mu def fi keneen ni gaa yi defoo rek la ñuy def amul fi mën a defet ñoo ko gën <coughs> mu denc nag sekkare boobu ba bi baam aadama pare mu feeñalaat ne leen déggu naa la ngeen waxoon nettali boobu lañ bëgg a pare nettali la boobu lay bëgg a nettali ba mu bindee maam aadama te malaaka yi dëkk ko ci ku bi fekk fi ay yëf yi ñu xamul seen tur malaaka yi yëf yi nga gis ñu di ko jëfandikoo ñoo jëkk nit ñi ay at ñee ñu junne at ñee ne ñetti junne at maanaam bool leket iléet jaasi paaka marto yëpp dañ ko liggéeyoon jóor ko waaye nag booba bindaguñu nit ñi malaaka yi nag di ko fa romb te xamuñu nañu tudd bi yàlla bindee aadama nag oo ko wax ko turu yooyu ne ko kii lii la tudd kii lii la tudd malaaka yi dinaa leen oo bés oola laaj leen lii na mu tudd suñ ne xamuñu ko nag leen gàgganti soo leen gàggantee daa doon seen sang daa leen sant ñu ngir ñu si juutal kon service camarade yàgg na ijjima bu ñuy bëgg a def pour ñëpp okk ci kenn ñu ko pro baa ngi fii mu ngi fii mu ngi fii attention bu ko fàtte door laa bi ne kaay leen kii bu rawee yëpp dañ ko dimbale adama noonu la waree gaay moo tax booy yàlla ni malaaka yi leen ma nag ngeen yéen a gën aadama yii ni mu tudd dañ ko ne mënu noo xam loolu xamul mu doon wax aadama wax leen ko mu mel ni du ma ko sant aadama wax ko bu màgg muy laajte su yëttal leen aadama nettali boobu nag lay am defal loolu جهود الصنع وقد ما يقوط في الارض ملاكيتون اتج ادو دا نغا في عاجسوف من دير كو خامني يفسد داي ما يالا في عاجسوف ويفسد تمي تور دماء ابرت كوسوف واي ما كوكو واي ku la sabbal nga bëgg doy nanu wa nanu nu sëbbiku nanu nu làmboo sabbal boo xam ne ñu ngi cay bi am dikk ci sant ñu ngay sabbal mutalaabisina bi am dikk wa nu qasidu te dañu sellal ak ñeel la sabbal mooy moo di moo di saxalal nit melo yu mat taq taqdiisi mooy dàqal ko melo yu matati waaw ñu ngi sabbal كن بين نمون لهم إني أعلم ما لا تعلمون دم لهم أو ما لهم قديسو لما لهم دون يقل خنا لهم يرخمون يدم دير بيك مبين آدم وعلى تخمل يا الله آدم آدم لصنع تريد مبقى الله كلها هيب ولم صلاة دينا خمل لك كرب بغان قلو أبوما خمل لك بخمل كل ندي جفن ديكو xamal na ko ba xamal ko gelawal wu génn ànd ak baat ak wu àndul baat yépp maam aadama yàlla xamal na ko suma suma xaradaxaa mu door a oo nag malaaka yi gaaral yëf yi laaj leen mu laaj nag yëf yi seen tur alal malaaikati fa xaala yàlla na leen anbi'uuni nettali leen ma bi asmaa'i aulaa'i ci turu yëf yi in kuntum saadiqin ndéem la ngeen noon yéen a gën aadama dëgg la wax nañu tur yii xaalu ñu ne ko subhanaka sag sell la ñuy saxal laa ilma déet xam-xam danaa ñeen ñi illa ma allamtanaa ndara loonu xamal te xamala goonu ko lu nu xam yaa nu ko xamal te waxunu ko innaka yow yàlla anta yow dong nga tawkiit la ci kaaf gi al alimu yaa aji xam ji jàngut al akimu yaa aji dogal ji dara du génn sa loxo mu ne li oo oolu aadama xaala yàlla ne ya aadamu an bi um nettalil gaa yi bi asmaa'ihim ci tur yi ñu xamul aadama jiitu ne leen kay ba mu nag yàlla ne falammaa anba'ahum ba nga xamee ne nettali na aadama gaaye bi asnaayam ci tour yi ñu xamul woon xaala yàlla dox wax wax malaaka yi na leen naka mu alla ma aqul waxuma woon ak yéen keroog bu may diir keroog bu ma leen di yéen naa bind aadama waxuma yoon ne inni aalamu xam naa xayba samawaati li fàtte ci asamaan bi juróom-ñaar wala bi suufi juróom-ñaar wa ëllëmu yëg naa maa tubdoona la ngeen tontonteeg man ci attajalu fiha wa maa kuntum takkatumoon ak la ngeen nëbboon di ko déeyante ba ngeen di dem naan du def ku nu gën كنا فاتلك بني وخل الملائكة يا الملائكة ملائكة في روس جوكل للآدم ينيب لنجل رب ما قال آدم ملين خمال لي طالب دي طرق لو سرينيم تموي سين سرين فسجدوك نعم نعم نعم نعم إلى إبليس دريكني وقت إبليس أبا من بنا واستكبر مريلو وكان متخذ مجنا نك من الكيفين بكثير على خمق يال وقلنا لي يا آدم اسكن دكال أنت يو وزوجك سجبر جنة وقلنا نجين أن نجين رير نجين نان نجين فلان نجين صل من أجي أجن فلين نخرى قدن تكياتو ايش سيتو مع فلين تامورك وانا كليك واي ولا تقربا فلين تكين مكاسس ليتك ربكي bu leen ko jegeñ jegeñ ak lekk fa takuuna su ngeen ko defee ngeen di xëy bokk min az-zaalimiina ci woy mooy yàlla yi waaye ndeysaan fa asalahuma tarxiis loo leen mooy dox bu mu yàgg te loxo sa tànk ne tër cheytaanu seytaanu anha ca ajjana fa axrajahuma mu fexe ba génne leen ne maa kaana ànd ak la ñu nekkoon ci xéwal fii ci ajjana moo leen juumloo lekkaloo garab ga xeet xeet téere yi nag wax nañu façon yu bari na moom la leen ko lekkaloo waaye daal ba mu ñëwee aadama bañ na ne ko yàlla daf ma ko tere mu dellu si aadama bañ mu dem jaar ci jabar ja nit ku beex nag ñaare looy wut ci moom bu téye boo jaar jabar ji am bunt mu jaar ca jabar ja jabar ja ne ko suma jëkkër nee na sunu daf koy tere mu ñëwaat mu bañ mu jaare ko ci wujj wa amul wujj seetu rek la ñëw woon awaa keroog la mos gis boppam ni ko kii kan la kële kan la mu ne ko sa wujj la góor gi la fële la lax garab gii mu naan yàlla la ko tere ndaw si la ko bëgg a jox soo fi ñàkkee fayda bi mu njëkk la ko lekk nag yow c'est fini pour yow c'est fini pour yow dee nga rek ah góor gi ak soxna si gaaw ne ko ah yow da nga doon ne yàllaa la teeree garab gii nga waxoon. waaw ah, moo ko tere kañ <laughs> baax na yëg naa sa secret. waaw ah, waaye bi nga xam te laa jëm kat mu ne ko déet mu waaxu rek jëm ci garab. góor gi ne ko déet mu waaxu dem dakk doom. Cheikh dara jëf. fekk Iblis noon na Adama ca dernière conversation moom ne noonu la ko ca itili war a doon wala rax bi suuf dañ ko jàngi ne ko kaay yàgg yabar ba digal garab goo xam ne ku ko lekk doo dee te it doo folle ko ñaari yëf la yu bon ci nit te la moom la gën a bëgg wërsëg ak fan mu gudd baaxul day gaañ nit koo gis nag ku mu doon moo lay teree nelaw wërsëg mu bareeg fan mu gudd gudd gu ànd ak yiir yaani ma rek la borom jëm moo tolante aadama ah, ah, ah, kaay ma digal leen naka la ko waxe woon waaw allah nam doo leen digal naka la al adulukuma wa mulkin laa li nga ñëw ma digal leen ci garab goo xam ne ku ko lekk doo dee te sa wërsëg du toxooti faw sa mbugg dàngoot ak wërsëg moo trompé Adama ba nga xamee ne soxna si laal na kat dara jotu ko muy ah iblis kat wa wa xaasamahuma inni lakumaa la mina naasihiin mu giñ ci yàlla ne billaay dama leen di laa biire moo tax Adama it defe na kenn du giñ ci yàlla fen ndaw si sax dara jotu mu ne kon la góor ga waxoon moom it suñu borom nag am na habitude su gune tooñ mbaa surga si du wax waaye bu ci kilifa yi bokkee góor gi waaxu ñëw rek ñu ko xool rek naka la dagg doom bi dugal ci génn gi rek fa la moo tax tër yi wax góor fi ñun di jóg ndax fi la doom di jot a yem ko fi jigéen aadama nag awaa nag bosam jot mu jàll moo tax mu mbërëg foofu rek la yem ndax na mi naaw li ma la ko waxoon bu ba mi naaw dàll yi naaw buntu ajiri mu jot mu tëju garab bu mu jóg jub mu dégaase fuddal rek ko xaar fuddal fuddal la dagg keroog muure ko awraam moo tax téere wax nañ ku ko diyaalee loo lakk te ku mu sa loxo fekk jubi ci doo tàggoo ak mbégte ci yoon ñu jëkkër ne jabar doo ko def jabar ne dinaa ko def ñeneen ñu benn projet rek la jabar mën a yóbbu ci sariya jëkkër tere ko ko jabar ne dina ko def mu dem jabar am am am am am dëgg moo di su ñu di fuddun nga bañ bu ngeen demee yoon foog yoon fuddun moo ko waaye lu dul loolu yoon da koy dax eh, mu daal di fa si mu wure ko kanamam ñu ne ko ay wàcc leen ñu nit la am gi li taxaw ñu de ko tere garab gi ku ku ko lekk dem cabinet te aji na kenn dafa dem cabinet ñu nit la am rek biir bi yëngu mu dukk dukki aw fii dukki dukki aw fii malaaka yi yàlla ne malaaka yi laaj leen góor gi lu xew mu ne daal dafa am suma biir lu yëngatu lu ma bëgg a génn ñu ne ko fan foo koy defee xanaa lu fii de ci tapis wurus yi tapis am ci dexi leen ñi ngi ko nar داخل waaye génnal fii loolu il faut que def ma ko dem de gan yàlla musul ci mbir jabaram waxul ihbitaa mooy fii wàcce leen yéen ñaar daf ne ihbito wàcce leen yéen ñëpp kon day mel ni ëppoon ñaaw téré téere yi ne nag ñun lañ ci boole walé mo tax ñi di mbolo wàccel yak say sët yi nga rëccu waaye su doon ñoo ñaar rek kon dañ nan ihbita wàcce leen ñaar waaye nag wàccel wàccaale sët yi nga nar a jur yéen ñëpp ci suuf kenn dootu fi juddoo ñoom Iblis rey na ba nu dee su boo li ci joxe dépense te fële xew foofu da ngaa toog rek pare balaa ngaa sol mbubboo dem ne meetar lan balaa ngaa naan gas teen mbaa nga gas robinet yëpp am loolu dégg rek dem leen dem leen addina fa axrajahuma génn nañ leen mimma kaana fihi wa qulna ahbitu laggaleen baxdakum fu ngeen demee ba jurante ñenn ñi aduwun ay noonu la ñuy doon ni baadin maanaam jaan noonu nit lay nit doon wala yéefar doon wala nit ku nekk ak noonam da ngeen di noonoo ci biir ak àllaaxira wala kum ñaan leen nag bu ngeen demee defar naa paa yi xotti naa mbedd yi fa daw am ngeen fa mustaqarun place bu ngeen war a mën a déju ba dat bi jot wa mataaun lu ma jiital ngeen mën di ci lekk di ci naan ba dat bi jot ilaa inin ba dee jot yegg na ko jot li nga laata ñëw suñu paa ñun ñëpp ñëpp daana wax ne na ngeen rafetal ni ngeen di ute wërsëg séddale nañu wërsëg yi lu jiitu bindu ruu yi junney at yàlla dafa xëy rek di jal di dem jal yi amul borom jal yooyu tawte nañu noor fekk leen fa loolu fekk leen fa amul borom toog junney at mu bind ay ruu di sànni ci jal yi ruu rek ci kaw jal jal bu ne ruuxa ca dala ko moom nga toog junne at mu door a bind jinne yi mu toog junne at mu door a bind maam aadama roof ko ci xarañam ñuy génn ndànk-ndànk ne bi ne na nga rafetal ute nii ku ci doxoon sa jant bay fenk ba moom muy soye ca benn guux bu dul wërsëgam it di ko jot ku ci amoon benn guux mu ne ci gémmiñi gaynde te muy wërsëgam it dina ko fekk fa mu tudd jox ko ko ñu jël ko kon na ngeen rafetal ni ngeen kan ya, kan di wuti waaw ana kan ci ci mu mom ak xaram ni ko tuddu xal ni la tuddu tudd kaw ba ngeen te xaar ni ngi la reyal yaa mom ku ci mak xaar ne la mak mag ko kooku yëgal la dindi juddu dama ne xoyal diwma na tëf xalam diwma jur ci doom ju góor di wut diw nay doom moom lañ koy tudde ci pare la la te ñëw ko gannaaw bi ñu doon lekk keroog ci seen diin te keroog la ñor ci tawi daaw ba la jaroon taw bi muy taw ren ñi nare ngeen teg ni yëwru dëkk ñëpp seen yu tay maa ngi ci pare la la nga door a ñëw de noonu la pare nag foo war a dëkk foo war a tukki loo war a feebar loo war a am loo war a xam loo war a gis ba fa ngay suul ak bés ba ngay suul wa lakum fi lardi mustaqarun wa mataun ilahin mun naa muus ba yokk si dara dana waay ne na dana arab ne na maroon ma wërsëg daal ni ma la ko mën a mellal ci borom ci moom la fexe ba mu yokk mbaa mu wàññeeku mu ngi mel ni takkaleer ak borom loolu wax man ngaa waaxu ba raw sa takkaleer man ngaa diib ba mu raw la léeg-léeg ñu jàng ko bi nasbi aadama rafa kalimatin nga ne fa talaqa aadama rëbb min rëbb min rabbihi min jooju jaar ak majrur la waaye baa gi da nga koy rafaa kalimaat yi da nga koy rafaa jëmm mu sëkkri salim jëmm rëbb moo nit salim la mënuñoo nasab waaye kon mën ngaa jàng fa talaqa aadama min rabbihi kalimaatun nga rafaa Fatalaka adama min rubbihi kalimatun Jangan ni jangan fatalaka adamu min rubbihi bi kalima kalimatin Dan nasab Kasara gomu tu kasara nasab lah Dia memuat Yusuf Salim Kasara ni nasab eh ya. Maf'on lah ikon maf'on lah idon Adama dah suruh kenapa amlu lagi khalam tok Kunjuri siyal مودي لا اله الا انت سبحانك اني كنت ربنا سلمنا اهونا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من القاشرين فطلق طلق مودي من a kenn ci ko mbir من a tël ñel rànkum daje mu firi ci or daje naka fëltu dinay doon it lu jóge ci suuf jëm ci lu jóge ci suuf kon da nasab aadama rafa nasab aadama rafa kalimaat su dee nag daje la rafa aadama nasab kalimaat aadama daal yàlla sànni na ca xel na ay fa talaqa for aadamu aadamu lu mu for kalimaatin ay baat yoo xam ne min rabbi mu ngi jóge ci ci ilhaamul ilahi ci ci ci sànnig ci xolam yàllaa ko sànni ay baat ñu ne nañu daf ci aq Mohammed jéggal ma yàlla ne ko foo xamee Mohammed te mu ne ko fan yi la am ajjana Adama kat mu ngi dugg ajjana ak pi mu ngi dugg àjjana à peu près une moyen yu yéeme noonu mais mu ko génne six heures mais génn wàllu surne boobu la juróom-ñaar fukki junne at la ci àddina nga gis nag li may wax gaa yi ne na ngeen watu seen bopp tàcc wiiw joo gis wiiw wiiw wiiw wiiw wiiw diw di tàccu am na ñaari deel yu ko daan def di ko xaar deeli daanu daanu na daanu na daanu na daanu na baraawu lay àndal soo dëgëree ba ko nag doo daanu ñu suul la ñëw muy dee na am déet tàcc wiiw joo gis laa wax wiiw wiiw ñaari dee lañ koy teeru ah di ka di ka di ka di ka di ka kii di ka approuvé approuvé approuvé nag bokkul ak bravo pour toujours tàccu lay àndal ak re baraawu dina sax dina sax lay ne sa lax suuf baraawu baraawu alaaji garo waa ñu ñu ko soxlaa sax ne jaañ yàlla ko yàlla yokk sutura alaaji alaaji garo jaañ entré àjjana di ko approuvé timis ji ñu di ko malaaka di ko baraawu dara gu mu jub nga daw na ko la ma laalaa da nga mooy sa borom mu mu jub nga

moom yëppam dañ ko yoroon léegi nag yàlla ko bu ci compter de dina pile voiture ak chauffeur ak kii booyeeb yooyu déglu ngi naga ngi nag dana béy mais maam Adama bi muy béy am na def mu caw nag wi ngir paa bu yéex nag yu def ko gestu ne ko bu fekkoon ku mooy nit bugal la kon yàlla bugal la Adama daara di jooy ma sunu borom ñëpp may yedd ba mala yi di ma yedd waaye baal ma ngir Muhammad mu ne ko foo a xamee mu ne ko li may am àjjana li muy néew néew gis naa buntu kër bu ma dem fekk na ñu bind fa sa turub turam néeg bu ma dugg géej na ñu bind ci sa turub turam lal bu ma toog fa am laa jot nga fab turam taqale ko sa tur am ci yow wàccuwaay mu ne baal naa la mu ne moom du ma la bind baal naa la baal gu balaa li tax nag nga xam ma di la xamal ne baal naa la mooy du la delloo àjjana tey ak awaa kon de mel ni baaluma la danga fiy toog foofu ci suuf ci biir àjjana nga ma tooñe woon ma génn toogal nag ci kaw suuf ñi ma tooñ jur ñu may tooñ ñooñu jur ñu may tooñ ñooñu jur ñu may tooñ ngeen di jurante di ma toñ ba mu bari ci biti ma dugal asaas leen ci biir yéen ñepp nga xam ne baal naa loolu rek la fi taxato loolu rek la fi taxato loolu rek la fi taxato a toog baal ko indi fatalaqa aadamu ndamas lonk ni kalima tan tun ndamas lonk wala fatalaqa aadama min rabbihi kalimatin moo taxit fa taaba yàlla daal di koy baal innahu huwa tawaabu rahim weer a ngi gars yi weer wu leen sàggan weeru jéggal la weeru jéggal la weeru nangu ñaan la weeru jàng alxuraan la weeru def yiw la weeru doxu bokk la weeru ñuuxu yàlla la yàlla ñu ci yàlla boole ci ñu koy gën a jege xulaa wax nañ leen ibitu minha wàcce leen àjjana jami'an dañ ko takraaru fa in ma yaatiyannakum su ngeen demee am dina am ku leen ngeen fekk si na leen ni ne ya tukkee ci man uddan alquran wala fa inna yatiyannakum ngeen fekk na leen ci addiya addina ni ne ya tukkee ci man yàlla uddan ab yonente bu ñuy wax mohammed fa man tabia ku góorgóorlu ba siiwal ulaaya sama téere ba wala sama ndaw loola ba dee fa laa xaafun déetit alim ci ñoom ci sukuraat wala am déet ñoom ñu son di ñuy toroxal ci alaxira waaye wala sénégal yi nga xam ne kafaroo dinañu ndaw loola ولن يدتير بابا وكذبوا يخلوا بآياتنا تي القرآن أولئك يعذاب نار نيغاي سفرهم يوم خالدون ويتخلن في عيش جهنم يلن جعل المصر بجاه رسول الله آه، بني إسرائيل إسرائيل نعيد من قرق gi عليه الصلاة والسلام القران فارلانج تامبليك بندوك ادم تي خيسا تك ابليس نيتل بني اسرائيل بني اسرائيل باش فني يق فلكو دال في بني اغ سيقول سفعاو سو كل لي دا في فك فك خيول لي يالا ديفال اسرائيل فك تي فك تيان جاي نكو في فك تي فك مبل يمولين بوغل موي فانوير لكدال في بي سي يقول مولاي فرافاني لغني يا بني إسرائيل يندومي ينقوبي إسرائيل ما ينقوبا كركرو فضل كلين نعمتي سمقي والقمخي ولون التي خي والقنقة ما أرحمت خي والناقة عليكم جسين بايلين جردون يوم ونحن نتلي في قطي جيج وقطي جيج رسول الله kon xéewal buñ ko defalee sa way jur mel na ne yow lañ ko defal ko leen xéewal gama defaloon seen way jur ya ngay wax mu xaasab la nag dafa mel ni ki ñuy waxala moom moom xéewal gi waaye di def maam yi la ay waa jële foofoo matal leen di eh, di eh, lante ga ñu defante woon ci ni bunne bi ñëwee di ngeen ko gëm su ngeen ko defee من التمدي كوفي دينا مثل سك بما اهديكم تشدي مديال انت هو نجي عندنا ما جينا ما اجنا ويا يا من يلا دم فرحبوني رجال لما بورن رجال كنن رجال كنن امن صار وامنكم ينقعوا بما انزلت لما وجه مصدق المدق لما معكم ان التوريد من ينير ولا تكونوا بلنكم ولا كافر دنجي بين بيتي بيجي القران ولا تستروا بلن ليتيكو باياتي كمالي نبي ثمانا قليلا قدا وجي يختموا ادنا na way jaaya man yàlla dong fa taxoon ragal leen man maa jara ragal wala talbisoo bu leen jaxase xaq dëgg bil baatil ak fen wata ko tumu te ngeen dina ba melu na wa antum yéen taalamoona waa waa too te ngeen joxe sàkkaata asaka yi war koo te ngeen di julli maara ki iina ànd ak koy ni ci la am la loolu bon ni ci waxtu bi ñëw neuf heures jëm ah ah أطعنا الناس بالبر بر دفع الله waaye bii moom lii yahudi ñoo ñu dajeeg benn benn ci jullit yi di gën a saxalal nekkuk rasul yonent ñoom léeg-léeg yàlla nag da ngeen yedd ataamuruuna da ngeen di antale digal yéen fooy yaxut yi naasa ñi mënula jàng bir bir ci gëm bi li ngeen leen koy digal waxtaan faw na ngeen fàtte anfusukum seen ngëmu bopp wa antum te mbir moom yéen taslaw na def na jàng ci seen nopp yi kitaaba tawreet afalaa taaqiluuna du ngeen settantalu li ngeen di def digle lu baax fàtte sa bopp bu xelkat wastahinoo yéen jullit yi sàkku leen dimmandiku doo leen dimmandiku ci yii ñaar yii ñaar ku ko dimmandikoo doo faalit doo ñànki bi sabri ci muñ sabri nag piree mooy téye bakkan ci lu ko naqari benn mu di loo koy def lu mu metti wala loo koy tere te mu neex ci bakkan nga forcé ko ca na ngeen dimmandikoo bi sabri na ngeen dimmandikoo wasalaati inaa taxu julli juróom لكبيرة تقولوا تيسنا تيسنا غال سلمل تهبار تاكو سانا داريب لانا تيدي فتير دكي يو يتي مستخولا مردوه سبي تيس كان جاي نيو تخو تم مجنافلا نقول قول نس جككو نخريب نياري نلو ندالي نيواج لين واج لين, واج لين. nga ne tu ñob ket demaat jàkka loolu nag bu naru la ànd ak feet àndul ak rëpp ndax di sax rek ba ñu ne dee foog mu metti moo tax yàlla ne bi inna taqoo julli juróom la kabiratun lu tiis la tiis na lool am na mu oyof ci ñoom ñii rek oyof ci ñoom ñan illa alal xaashiina ndaree way ragal ña yàlla ñan la la si ne yi nga xam ne yu suul noonu óor na leen péng ne annahum naka ñoom laakoo rabbihim dinañu dajeeg yàlla mu wisit leen fay leen waa noonu ak naka ñoom wóor na leen ne rajo óor na dañ leen jiital yi teewal ci kanamu yàlla ñooñu daal julli yi dina yomb ci ñoom lool taane yàlla dina yomb ci ñoom lool xam ne lu mu óor na leen ne eh, dañuy jóge fii jëm ca yàlla wóor na leen ne dignité doxe noonu lañ leen di dekkal ñu taxal ca kanam yàlla ñettali liñ fi nekke woon ñu fay leen ko ñooñu moom julli yomb na ci ñoom loolu waaye lu ñu mutis ci ñoom de yonent yàlla Moussa suñ borom ko feeñu ne ko maa ngi lay dénk juróomi yëf mu ne ko lan ak lan mu ne ko féeg naa man yàlla man yàlla folleeku naa def nañ ma coup ba ki ma ko def falu nga toppatoo ko ba mu wér feeg loolu amul su séentuur ak topp yàlla bu ko tekki na naan na naan day niroog nag wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin feeg déggu na folleeku naa man yàlla bul tekki sa séentuur ak topp yàlla ñaareel bi feeg déggu na sama maa si nii jeex na ba maa ngiy jéggaani bu bu bu wërsëg doon sa yitti wërsëg bu mu doon si itte maa ko yor naa la ko jox foo mën a nekk ñaar ñetteel ba fekk binduma la leetar na la lu la neex defal ci bàkkaar bul ayibal kenn ko def bàkkaar ñeenteel ba fekk iblis deewul bul tëral sa gànnaay da lay bett a gaaj la juróomeel ba fekk dugg la àjjana ba installé bu mu sama pex <laughs> walla yaa mun a makkalaay laa xamal xaadiru daa ku baab

comme na Maodo meloon la ko doon dee ne El Hadj Malick yàlla te dee ci kilifa ba xam ba xoraa mu mosaa dak def nii ma def day jëloon la ñu ma fuus ci lay gàgganti ko. ñoo ñaar fukki junni suur yi ko daal wër mu di leen dicté ni kii bindal nangam bindal nangam dina àggal na leen xanaa àggalagu leen di leen yàkkamti. mu nga safara. comme le comme إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك baaxul iblis baaxul moom nit yàlla yi faalewuñu bàkkaar bàkkaar amul solo ñoom dañuy di leen tiital génn ci diine génn ci diine rek ne moom lu bàkkaar rëy rëy boo ko deyaalee te di jullit àjjana nga jëm mais da lay propagande ba génne la ci lislaam yàlla nañ ci yàlla musa surtout nag aana tasakkaraatal mawti boo gisee bëgguñu ko bëgguñu ko bëgguñu bëgg nañu kuy bëgg a dee say bokk jegeñ la iblis daf fi yàqal ñu bari ndax nit kuy bëgg a dee du màndi soo ko nàndaloon géej gi juróom-ñaar du màndi parce que da doon am nokki buy dugg nokki buy duggay tax nit màndi soo tollu sukuraat nag day roccee kuy dem rek dañ koy xëcc rek muy dem muy dem muy dem di dem ba ne këndëm jeex su ko defee foofu dina fi profité indi mel ni gutt di ko yëngal nit ñi di ko gis ne la saxalal muur bu am bu dul yàlla ma may la nga naan su fekkee say bokk sàggante nga mar da nga koy wax génneel ci diina nga nga dee ci kufum yan ci yàlla musul يا بني إسرائيل دومي ينقو بيسكروا فتلكوا وبروا